assalaamu aleykum wa rahmatullah taala mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziyaara bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di sàkku ci yéen ñaan tamit di ñaan yàlla dolli ñu sutura te yàlla barkeel lépp loo xam ne joxe nañ ko fi ku ko ji ku ko utiliser rek mu jëriñ la comme ni nga ko bëggee incha allah ñuy fàttali rek ñi nga xam ne nii abonné guñ ñu abonné ñi nga xam ne it abone nañ ñu ngi leen di remercier di leen gërëm te gis nañ it ñiy jàpp ci liggéey bi di partager vidéo yi ci réseau sociaux yépp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax mbokk yi tey nag ñu indi secret bu yomb nag bu yomb la boo xam ne wàllu wërsëg la lu wërsëg tëju tëju tëju nit ki loo tëju tëju tëju boo ko utiliser incha allah di nga gis ubbeeku bu rëy rëy rëy ci sa côté mooy comme nii nga xam ne moom lañ bindee xaatim gi moom nga koy recopier waatee boo bindee bas basmala bind bisim boo bindee bisimillahi rahmaani rahim bind xaatim gi bam jeex nga tëje ko salaatu ala nabi nga dem nga sangoo ko mais nag sang bi ñett fan lay doon sangoo ko trois jours saa yoo xëyee wala sag bu wala bu ngoonee bu la neexee nga sangu ko suba gi ak ngoon gi ba mat trois jours après nag mais bés bi nga koy commencé sangoo bés boobu ngay commencé werd bi tamit ngay def astaxfirullah téeméer fatiha kon bokk ngay njëkkee def astaxfirullah téeméer ngay def allahu xayul qayumu 4444 bu jot boo sangooyee ñett fan nag nga continuer wérdi bi nag werd bi lum tuuti tuuti na mat 45 jours boo defee fatiha def astaxfirullaha téeméer def allahu xayul qayumu quatre mille quatre cent quarante quatre muy ñeent junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent boo koy def ngay njëkkee quatre bi teg ci quarante def quatre cent bi doo def quatre mille yi incha allah nga saxoo ko ba mat quarante cinq jours di nga gis ubbeeku bu rëy a rëy ci sa côté lu say mbir tëju tëju tëju boo ko jëfandikoo yee rek da gis lu la jafe woon dana la yomb bu dee am am dafa la jafe woon danga gis mu yomb la lépp luy xeetu lu la jafe woon da nga gis ne incha allah dina la yomb ndax ubbeeku la bu rëy di ñaan rek ku ko mën a def nga jëfandikoo ko xool ndax njëriñ lu rëy a rëy la ñu yemaleeg ñu yem fii nag ba beneen yoon incha allah ñu indi yeneen di fàttaliwaat ñi nga xam ne abonné ñu abonné ngir yeneen yi fi ñëw incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullah taala